félicitations prix bi kontaan naa ci trop trop trop. merci beaucoup ñoo ci gën a kontaan. Mhm. alors tey Dieyla euh, nekk na koo xam ne moom musique sénégalaise mënuñu koo génnee léegi ci musique sénégalaise saa yoo génnee mu nekk it qu'est-ce que ça te bon damay kontaan bu baax a baax di ci sant yàlla ndax yombul nga nekk xale heure boo ñëwee nit ñi daw xooli ko wax dëgg neex yàlla aw seen fay daal. Mhm. dernier clip bi dee ko woyofal boobu doy na waar. waaw gis nga damaa bëgg lépp di woyof àdduna xam nga amul solo na lépp woyof. Euh, chaque jour mu nekk tem mbëggeel ngay waaye mais en même temps si biir dafay am tem euh, yaay bind say waaye wala dañu ko. bon mën naa ne ñun ñëpp la équipe bi ñun ñëpp ku nekk da ngay ñëw joxe sa idée comme que équipe daal ñun ñu xool mu gën a naay rek ñu noonu. retour yi nga ciy am nag. Mhm. bon maa ngi ciy am retour yu baax macha allah ndax maa ngi ciy gis nit ñi di ci di ci gis seen bopp et que loolu yokk jom bëgg man su ma woyee nit ñi di ci gis seen bopp sant yàlla la contentement la mbégte la bu rëy rëy rëy sax si man. beneen remarque chaque jour su ma la invité dama koy dama koy waxaat te loolu mooy ñëwaat mooy dafa simple clipam dafay sol lu yiw euh, du du du du extravagance artiste la mais mais dafa simple. dëgg la waaw loolu moom Dieyla la ndax ku xam Dieyla xam ne nii la yàgg a mel Dieyla moom yaay Fall la man moom dama simple nii laa mel. Mhm. d'accord lu ñu mën a xaaraat tamit. waaw lu doy waar rek comme ni ñu koy defee bëgg rek ngeen kontaan lu doy waar léegi léegi rek du yàgg dara.